pour jottali njaalam waaye njaalu réew mi yëpp ni nga ko waxee ñu ànd ci délégation bi ak monsieur le ministre conseil Serigne Abdou Lahad Mbacké monsieur le gouverneur de Diourbel monsieur le directeur général de la SOGIP Gallo Ba monsieur le préfet du département de Mbacké ak sous-préfet Ndam président yebal ñu xew-xew bi sax moo tax mu ne ñu defee ko nu mu gën a sobre ndax mbas mi ñëw pour jottali njaalam sëriñ Mountakha sëriñ euh, sëriñ Touba sëriñ Mountakha Bachir ñu njëkkee fa jéggal ko njaale président la république ak siyaare président de la république donc buñ fa jógee ñu egsi fi euh, pour jàppal tàbbal njaalu président mais njaalu Sénégal yëpp ndax aatu nekkoon na koo xam ne nii Sénégal yëpp ko bokk patrimoine national la mun naa wax sax ne patrimoine international la mu liggéey ci yoon bi liggéey bu am solo boo xam ne nii daayira bi rek moomatu ko Sénégal yëpp ñoo ko bokk ku mel noonu nag su wàccee liggéey jàpp naa ne jaadu na ko xam relation yi amoon moom ak président la république personnellement mais relation président ak daayira bi na président yónnee ñu am mbégte donc ñëw teew fi di ñaan yàlla yàlla xare ko àjjana di ñaanal aussi sëñ Youssou mi nga xam ni moom la sëriñ Mountakha désigné pour mu jiite daayira bi suñu xel dal ci bu baax parce que tamit euh, ku xam sañ Atou xam nga sañ Youssou